no keys, no bitch, no smoke, no pills, and no skis. Mad at me, cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a soul control. Clacks, hanging up in the office and back of my house like trophies. Cause y'all think I'ma let my dough freeze? Please, you better bow down on both knees. Who you think taught you trees? Who you think brought you the ODs? Easy E's, Ice Cubes and DOCs. The Snoop D-O-double G's, and the group that sent the police. Salam, salam. partagez-les. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nuyu ñëpp. asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Sélé Mbaye mon frère maa ngi lay nuyu di nuyu dañ kumpa su <laughs> boobu doy na waa dañ kumpa euh, as kaw Sénégal maa ngi lay nuyu. Martin Luther du Gers Mohamed Koulibaly le combattant de la première heure ba yaa ngi ci jàmm <laughs> Bassirou Dia maa ngi leen nuyu ngi leen di ziare Ibrahima Traoré xaaral leen musique sénégalaise en attendant partagez leen vidéo bi mu ñëw rapidement euh, jël ma jël pour mun a wax ci euh, affaire euh, la responsabilité de l'État euh, dans le cas des Sénégalais qui sont bloqués en Chine, euh, dans un pays euh, frappé par la maladie. Aram Wali maa le lay nuyu dugg ci maa ngi lay ziar Ami Diba maa ngi nuyu bu baax Fabio César Lecce maa ngi le nuyu di la ziar bu baax di leen mbaa yaa ngeen ci jàmm yàlla na leen yàlla may jàmm parce que maa ngi lay ziar ka dollar merci maa ngi nuyu. oh li nga ko Idrissa bu may fàttali sama frère boobu Idrissa te mu nekk moom tam euh, Chine j'espère que vous êtes euh, yaa ngeen ci jàmm j'espère que yéen ñi nekk Chine vraiment yàlla dina leen jàppale parce que euh, gis naa ni que état bi état bi dafa daw ay responsabilité am Perido Rubis maa ngi lay nuyu gis ngeen comme ni ma ko waxee rek du ma je pense que ce ko mission bi nga xam ne ci réseau sociaux yi Euh, moom la ñu assigné woon suñu bopp depuis les années ay 2010 2011 je pense que on a réussi cette mission tous ensemble ak ak ay ñoom euh, Mohamed Koulibaly ñii ñëpp ah ñoo fi nekkoon au début Ami Diba maa ngi lay bëgg bu baax Ismaïla Diatta maa ngi lay nuyu di wax ni que Youssoufa Diagne jubanti Maroc maa ngi lay ziyaare na ma naa la nag ma woo sama téléphone bi du sonné dafa am un petit problème miinaguma ko Alain Idrissa sa ngi lay xalaat bu baax effectivement Ah, suñu xalif suñu frère Alain Idrissa moo gën a tax ma man xam nga moom la may wax euh, ci waa Japon parce que euh, waa waa Chine euh, le premier devoir de l'État c'est la sécurité te bu ñu waxee sécurité c'est la sécurité des personnes et des biens le premier devoir de l'État c'est la sécurité et li ñu constaté Sénégal tey mooy l'État a failli encore amul domaine boo xam ne état sénégalais mu ngi assuré et on ne va pas prétexter on ne plus prétexter le manque de moyens partage leen vidéo bi mënatuñu toog Sénégal di expliquer échec u état bi parce que il n'y a pas de moyens comme ni ñu tàmba wax depuis ba ñu nekkee xale boo amul lu amul rek ci hôpitaux yi ñu ne ah c'est un pays pauvre amuñu moyen non non non parce que dafa situation bi côté finance dafa changé sénégalais am droit à la meilleure offre meilleure protection possible de la part de ceux qui nous dirigent de ceux qui ont prétendu être capables de gérer les destinées de ce peuple en l'occurrence le président de la République monsieur le président Macky Sall vous avez le devoir d'assurer la sécurité des personnes et des biens loolu mooy sa premier devoir comme ni ko Aliou Marie waxee ministre français boobu Cheikh Tidiane Sall maa ngi lay nuyu Colette Fanta Borelli sama gars yi partagé leen vidéo bi je veux sama numéro bi mun ngeen ma ci woo 951 bi mun ngeen participer ñu def benn live bu gàtt ngeen joxe seen xalaat parce que tey boo jëlee lépp loo xam ne dafa concerner sécurité sénégalais yi lépp dafa faillir et si vous allez sur la page jubanti point com di ngeen gis la sécurité alimentaire l'État a failli parce que ñu ngi jox Sénégalais yi ay ceeb yu périmé ñu koy lekk te kenn xamul les conséquences sur le plan de la santé au nez ou la barbe des Sénégalais des autorités sénégalaises ay compagnie di jël ceeb boo xam ne dafa nëpp am ay sax di ko recycler di ko def ci ay sac yu bees di ko dundalee di ko jox Sénégalais ñu ci def seen xaalis di ko dundalee seen njaboot avec toutes les implications sur le plan de la sante benn deuxièmement ñu ngi rey sénégalais yi ñu ngi rey sénégalais yi ci mbedd Dakar ñu ngi leen di fekk ba seen i biir kër di leen rey mu nekk un autre échec sur le plan li nga xam ne mooy premier devoir u Macky Sall muy la sécurité de personnes et des biens la sécurité des sénégalais est la première chose bi nga xam ni Macky Sall yow nga loolu nga tey tu as fait un aveu d'échec parce que maa ngi ci vidéo bi mu ngi maa ngi koy doog gis mu ngi jubbanti point com nga wax ni que mënoo mënoo aar sénégalais yi nekk Chine c'est quoi cette capacité Macky Sall sa doom bu fa nekkoon tey di nga jël sa avion boobu jël personnel médical sinon di nga wax parce que tu as des accords avec la France lu ya yaa ngi koy defal France Macky Sall c'est ça justement la raison pour laquelle on peut même supporter suñu alal bi ngay jox France c'est que dans des conditions comme ça, que ces accords, que ce partenariat avec la France, que ces accords que vous avez puissent servir le peuple sénégalais. Mais, mais la France, donc, elle est là. France, dafi nekk rek. France, dafi nekk pour jël. La France est là pour juste milk les Sénégalais. La France est juste pour prendre. Mais c'est dans ces occasions-là que tu dois exiger à la France de t'aider. la France ses ressortissants mu ngi leen di gérer ñi nekk Chine pourquoi France mënu la jël ressortissants sénégalais yi amoo fulla booy imposer France mu évacuer aussi les ressortissants sénégalais au nom des accords que vous avez la coopération qui existe entre la France et le Sénégal c'est pas seulement pour enrichir les Français mais yow yaa ñuy représenter mal monsieur le président de la République vous nous représentez mal parce que amu leen fulla amoo fulla face à tes partenaires parce que boo amoon fulla tey fulla bi nekkoon ci Abdoulaye Wade kon France dina évacuer les Sénégalais mettre leen dans des conditions puisque yow sa bopp tu fais un aveu d'échec tu as effectivement tu as donné aujourd'hui un aveu d'échec ça veut dire que yow non seulement le Sénégal a échoué pour prendre en charge ses propres enfants leur assurer la sécurité mais yow t'es même pas capable sur le plan diplomatique d'avoir tes partenaires ñu jël en charge la sécurité des enfants du Sénégal et pourtant ces partenaires sont en train de nous spolier au nom de la coopération qu'il y a entre nous et eux Cette coopération qui nous coûte des milliards par an, leurs supermarchés qui sont chez nous, qui sont en train de s'enrichir, de se faire des milliards, leurs compagnies Orange, le leur, leur Auchan et tout, qui sont en train de s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Mais Boudé Lolo, la Sall, au moins tu peux demander au Sénégal Tu peux demander à la France de rapatrier les enfants sénégalais qui sont bloqués en Chine, dans un pays que tout le monde fuit aujourd'hui. Même les restaurants chinois sont vides parce que les gens sont en train de protéger leur peuple. Et vous nous mettez, vous, vous mettez devant ce peuple qui vous a élu, ce peuple à qui vous avez garanti de mener à ses destinées ñu jox la lu ne lu nga jël ko liñ la jox dañ la jox nga jël leneen lu raw liñ la jox nga akki moo ko ñun ne d'accord ba noppi nga ni la sécurité des Sénégalais résidant en Chine tu te mets devant le peuple sénégalais tu leur dis je suis pas capable à quoi servent les accords de coopération entre la France et le Sénégal entre la France le Sénégal et les États-Unis entre tous ces pays-là qui viennent chez nous s'enrichir mais demal wax ak ñoom ñii duñu ay bàyyuma c'est pas des chèvres que tu as en Chine c'est des Sénégalais qui sont là-bas ay Sénégalais ñoo xam ni tu leur dois la protection et tu en as les moyens Macky Sall du dëgg je suis désolée de me porter en faux tu as les moyens tu ne veux pas jaralu la ko tu as les moyens de protéger ces Sénégalais là tu as waxuñu la nga rapatrier leen dañu la ne nga wax français yi ñu ànd dañuy jëlee seeni askan dugal leen dans des conditions au nom des accords que nous avons au nom des intérêts au nom de de tout ce qu'on est en train de leur donner que ñu jël les enfants du Sénégal qui sont en Chine traiter leen comme les enfants de la France dont ils sont en train de s'occuper mënuñuy ñëw Sénégal di fa jël lu leen neex di am lu leen neex Sénégal soxla leen ñu dumooyu ko te loolu yow yaay am fule yow yaa war a am ingéniosité booy waxee France mu au moins au nom de ces accords ces partenariats qui nous polluent depuis des années qu'ils prennent en charge les, les Sénégalais qui sont en Chine parce que la France a les moyens il est en train de s'occuper et puis yéen voilà encore l'aveu d'échec le plus cuisant comment vous faites pour ne pas être en mesure d'avoir les moyens de protéger les Sénégalais qui sont en Chine alors que c'est vous qui avez tous les ressources les ressources tey ressources yi ngay jox France yow yaa am pétrole France amul pétrole yaa am or France amul or yaa am zircon France amul zircon yaa am euh, magnésium xawma toutes ces ressources phosphate yi ngeen di jël di leen di leen jox France ci fi la ressources yi ngeen di jox France ci fisabilillah léegi waxal France sax mu am lu mu la delloo si nga aar sa askan sa doomu réew yi nekk fële sa doom bu fa nekkoon tey Macky Sall doo wax ni mënoo protéger sénégalais yi nekk foofu bëgg nga waaye mënoo ko qui veut peu. qui le plus peut le moins tey bu la Chine invité woon sa avion boobu dinga nga ko yëkkati dem Chine lu ma leer te di nga am moyen yi ngay protéger sa bopp ak sa ak ñi ànd ak yow lu tax ngeen manqué volonté ci peuple sénégalais lan moo waral manque de volonté bii par rapport au peuple sénégalais nga taxaw di wax peuple sénégalais je ne peux rien faire pour ces enfants du Sénégal qui sont en Chine Vous vous rendez compte Vous de ce que vous êtes en train de dire au Sénégalais looyu mooy mais hôpital yi hôpitaux yi on a vu récemment il y a pas longtemps le cas de ce jeune américain tué tué au Sénégal loolu bëgguma ci woon sax wax lu bëri tellement ça fait mal et tellement ça fait honte mais c'est votre les sénégalais comme ni ma ko waxee woon ba ma demee ci élection yi voilà un peuple laissé à lui-même c'est comme si nga am benn gétt nga jël ko yóbbu ko ba ci digg àll bu xonk bi nga bàyyi ko foofu c'est ce que vous les leaders sénégalais avez fait au peuple sénégalais mënoo wax ni yow tu un président de la république nga taxaw di joxe aveu d'impuissance par rapport à la situation des sénégalais en Chine el commandante mon frère Omar Ndiaye maa nga teg ko fan on vous paie pour trouver des solutions on vous paie pour protéger les Sénégalais la police sénégalaise est bien outillée la police sénégalaise est bien formée pour l'essentiel je veux dire le leadership l'armée sénégalaise est une des armées les plus vaillantes mais vous ne leur donnez pas les moyens aujourd'hui c'est notre armée qui doit être réquisitionnée les forces de l'ordre réquisitionnées pour prévenir le peuple sénégalais pour protéger le peuple sénégalais contre ce virus bi nga xam ni fii foo ko romb mu ngi def masque am ana masque yi jox nga sénégalais ay masque est-ce que les gens qui sont à l'aéroport les travailleurs de l'aéroport est-ce que ils sont outillés pour déceler ceux qui peuvent être des dangers pour le Sénégal tey avec ce coronavirus Mais il n'y a aucune, aucune protection. Les Chinois, Chinois, il n'est que Sénégal. Ceux qui reviennent de la Chine, est-ce qu'ils sont mis en quarantaine Sénégalais, idem Chine, d'IDEF Commerce, est-ce que ils sont mis en quarantaine Est-ce qu'ils sont protégés Contre eux-mêmes d'abord, pour avoir été en Chine et le peuple sénégalais, est-ce qu'il est protégé Je ne pense pas. Et puis, comme ça, le président Nyeme Tahaw, Wahne, on est incapable, on ne peut pas. Comme si Ngani, sa jabar ñew laaj la, né la dama bëgg <coughs> jox nga sa jabar ba mu meut le dépense, mu né la mu ñew di la laaj ben extra nga ni ko bon, je suis désolé mais je peux pas. Mais c'est comme ça, du sa du sa du nonu démé wul Sall. du comme sa kër yow ak sa jabar bu la neex sa jabar laaj la nga ni mënuma boo dépense bi waaw léegi dañuy jéem a kii non lii c'est le peuple sénégalais da nga am devoir de résultat et encore que avec ta femme tu même un devoir de résultat mais avec le peuple sénégalais président monsieur le président de la république vous avez un devoir de résultat surtout loo xam ni dafa mën a faat ay bakkan nii sama gars yi maa ngi leen di nuyu di nuyu Fatou Fatou sama sœur maa ngi lay ziar bu baax Aminata Fall Bambi Gadega Hadj Oumar Ly Keba Ndiaye mon frère Keba maa ngi lay bégge bu baax Baye Fall Pouy Fatou Mayine maa ngi leen di nuyu Marie Françoise sama turando maa ngi lay bu baax man dama xam ni que dëkk yi nga xam ni yëpp ñu ngi ci àddina bi tey tous les tous les peuples de la planète tey ñu ngi jël ay mesures particulières pour sauver leur peuple pour protéger leur peuple Sénégal amul lu lu dul président bu taxaw ne mënuma mënuma ci dara mënuma ci dara mënuñu amuñu moyen yi mais pourtant fu nit ñi fu fu am moyen ña nga xam ne dañoo liggéeyal seen askan fu ñu taxaw yow yaa ngi fa dem taxaw yaa ngi dem ay G8 fu ne yaa ngi fay dem nga bëgg a wax ni amoo moyen yow amoo moyen yooy jàppale Sénégal amoo moyen yooyu protéger doomu Sénégal mais lii dafa ëpp xam nga man comme je nekkuma fi pour di dingat di di di di ngañ di wax mais loo xam ni dafa choquant mënuma ko tànkamlu lii dafa choquant monsieur le président de la république ses chargés de communication ses conseillers ils ont failli un président ne peut pas s'asseoir à la face du monde et dire à son peuple je ne peux pas vous protéger Mais dites qu'on est en train de négocier avec nos partenaires comment nous allons pouvoir mettre les Sénégalais à l'abri, mettre les Sénégalais en sécurité. Ça, au moins, on sent qu'il y a un respect. Vous avez du respect vis-à-vis des Sénégalais. Mais vous vous mettez là pour dire aux Sénégalais, je peux pas. Alors que nous avons du zircon, du gaz, de l'or, du, du, poisson que vous offrez à ces gens-là. ces gens à qui on offre tout ñoom ñu ngi dem di yóbbu seen i doom di leen mettre dans de bonnes conditions et ils sont pas fichus de nous rendre la monnaie de la pièce c'est-à-dire au moins comme vous avez avoué que amul leen you know amul leen ay oto amul leen ay hôpitaux amul leen ay moyens yoo leen di récupérer n'est-ce pas tu tu ne peux pas te mettre là et dire aux Sénégalais que nous ne pouvons pas et nous n'allons même pas chercher des solutions Dites que vous allez chercher des solutions. Dites que vous allez chercher des solutions. Dites que vous n'avez pas abandonné le peuple. Dites que vous allez trouver les moyens. Vous n'en avez pas les moyens. Vous avez échoué à construire le dispositif qui peut mettre en sécurité les Sénégalais, mais que vous êtes en train de négocier avec les partenaires au développement. Vous êtes avec, avec la France, avec les États-Unis pour rapatrier ces Sénégalais et les mettre dans des conditions idoines à protéger leur santé, à protéger leur, leur intégrité. loolu la ñu mën a dégg mais pas un discours défaitiste comme bi nga ñu indil tey vous nous dites vous n'avez pas les moyens de protéger le peuple sénégalais et ça amul aveu d'échec bu ko gën a grave je suis désolée je ne suis pas votre soutien je suis pas votre ennemi mais lii mooy aveu d'échec bu gën a grave boo xam ne un leader war na ko mën a jox à la face du monde face à son peuple ça je ne xawma kan moo la conseiller ba nga taxaw naan sénégalais mënuma mais boo mënul da ngay démissionner kon tey jox nga am nga raison pour démissionner am nga raison tey pour génn wax sénégalais yi nii je suis je suis incapable j'ai failli parce que amul situation bu nit war a euh, fa met nekk en face au Sénégal te yow doo ko mën a gérer yow mi président de la République bu sa bu jagee nga soppaliku sax picc dinaaw dem jëli leen da nga war a soppaliku picc dem jëli leen parce que yaa wax ne mën nga te situation bi li mu laaj da nga ko war a mën quelle que soit situation bi li mu laaj tu as la caisse noire effectivement qui prévoit ay dépenses yu mel ni nga xam ni dafa euh, ñëw loo xam ne des situations imprévisibles lii mooy njëriñu caisse noire on peut accepter que ci caisse noire nga gën a def nga def ay dépenses yu mel ni extraordinaire pour sauver les enfants de ce pays aw ma frère bu fa nekk ah. aw ma mbokk bu fa nekk mais c'est des Sénégalais comme vous et moi et qui ont droit à votre protection loolu rek la Macky Sall dellu man man xaw ma ndax yow laay wax ndax say conseiller nan ngay conseiller président bu taxaw wax askanam mënuma protéger ay doomu askan wi nan ngeen mën a imaginer que loolu war na mën a nekk war na mën a génn ci gémmiñu président de la république que mënuma protéger alors que loolu mooy sa premier devoir opito yaa ngi rey mbedd baa ngi rey dañ lay fekk ba sa biir kër rey la Vous avez failli. Et nous l'avons dit depuis. Mais là, c'est vous qui venez nous dire que nous avons failli. Parce que non seulement vous avez dit que vous avez failli construire un dispositif capable de prendre en charge ces Sénégalais, mais il y a des médecins sénégalais qui ont été formés dans les plus grandes écoles de ce pays. Des médecins sénégalais formés dans les plus grandes écoles de, de, de, du monde. spécialisés j'en suis sûr qui peuvent prendre en charge ces malades là mais c'est les danga médecins yi formé nañ leen mais joxuñu leen les outils les instruments qu'il faut c'est ça problème médecins sénégalais yi ils sont per dañoo aay mais conditions yi ñu war a liggéeyee nga leen joxul c'est comme nga yor ambulance te amul essence ambulance boobu du dem jëli kenn ba koy faj hôpitaux sénégalais yi le plateau n'est pas bon il est caduc donc expertise bi sénégalais yi yow du amal sénégalais yi njëriñ les fils de ce pays sont hyper compétents mais on ne leur donne pas les moyens de montrer de de de compétir avec leurs pairs les médecins c'est la même chose la police c'est la même chose les enseignants c'est la même chose quand tu vas les infirmières le laisser aller bi nekk à la tête le poisson pourri par la tête bi nekk au niveau de la gestion du pays moo yegg ba ci hôpitaux yi Tu vois ça À l'aéroport, les, les, les gens n'ont même pas de masque. Et on ne va même pas désinfecter ce qui arrive sur le territoire national. Donc, on ne sait pas, virus bobu bu yegsee Sénégal moom na ngeen fexe ba ba na ngeen toog bañ a génn réew mi nag yéen politique yi yéen politiciens yéen ñi ñuy gérer bu virus bi yegsee Sénégal bu leen génn Sénégal de bu leen xawale seen njaboot de bu leen jox seen doom njaboot masque bu leen yóbbu seen njaboot ay opito yu nekkul Sénégal na ñëpp a toog Sénégal ñëpp a deewoon ñun ñëpp ñu ñu mais pas de de régime d'exception Macky Sall sa doom bu nekkoon Chine tey di nga sàkk pexe sénégalais yi dina ñëw dina ñibbisi te xanaa xëy na dina rawale sénégalais yi fa nekk defal comme si sa doom moo fa nekk defal comme si c'est ton fils ou ta femme sa deret moo fa nekk. nga dem nga nga wut solution amuñu moyens yi loolu xam nañ ko ndax opito yi sénégal yi ñu ngi fay nekk ñu duñu am seringue duñu am pansement hôpitaux yi seen déchets yi nga xam ni dafa am ay dis fii hôpitaux fii batterie sax dafa am nuñ koy disposer mënoo jël batterie rek sànni ci àll bi ndax dañuy aar doomu aadama léegi hôpitaux yi dañuy jël seen mbalit ay poche ay yu ay am ay seringue ay poche yu am ay deret du souillé du sang souillé e c'est c'est sur la plage xale yu ndaw yi xam nga xale dafa bëgg ay bagages xale yi danañu dem ba ci plage ba jël seringue yoo xam ne xëy na ku am sida perfusé nañ ko ci wala piqûre nañ ci ku am sida xale yi fooyee ko mu jam leen ñu contaminer seen bopp parce que l'État a failli à mettre en place même loolu le dispositif pour que hôpitaux yi seen déchets yi ñu mettre ñu ñu détruire ko de manière appropriée donc ñun ban domaine la suñu autorité réussir à part de nous mélanger entre ñun sénégalais ñuy lekkante ban domaine le Macky Sall réussir loolu laa bëgg a la question si Macky Sall tey yow tu dis au sénégalais je ne peux pas mënuma leen protéger ñu nekk Chine je suis désolé vous êtes là-bas dans ces circonstances mais mënuñu leen protéger léegi qu'est-ce que vous attendez vous pensez que les Chinois vont s'occuper des patients s'il y a des patients sénégalais on va s'occuper des patients sénégalais de la même façon qu'on s'occupe d'un patient chinois loolu ngeen yaakaar mais non vous ne rêvez pas la Chine est submergée chinois bu feebaree dinañ ko faj africain bu ñëwee dinañ ko buñ ko joxee lal tam dañ koy def quarantaine teg ko fële lijjanti seen njaboot parce que les gens ne vont pas prendre leurs responsabilités à votre place et ceci est extrêmement grave en effet c'est très grave ce que le président a dit aujourd'hui c'est inacceptable wax naa leen ni que man ci luy construire lay dox mais lii c'est une critique boo xam ne vous devez prendre ça en charge rectifier le tir président de la République le père de toute la nation le père de chaque Sénégalais qui a le premier devoir son premier devoir étant la sécurité war na warut a mën a taxaw ci kanamu askan bi ne leen mënuma mënuma leen garantir dara parce que amuma opito yu ma leen mën a recevoir déedéet amuma hôpitaux yu ma la mën a recevoir eh, mais la France est là la France qui bouffe nos ressources depuis des décennies nous doit le minimum c'est-à-dire de nous aider dans des circonstances pareilles les États-Unis ils ont des intérêts chez nous ils ont ils sont archi plus que plus pour venir en aide aux Sénégalais et c'est ça que sert coopération loolu lay njëriñ waaye coopération boo xam ne yow da ngay dépouiller peuple Tu dépouilles ton peuple et tu n'as rien en retour. À part l'impunité que te confère, que la France te confère pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. C'est quoi cette gestion C'est quoi ce management Donc, yo coopération, c'est juste pour que tu te maintiennes au pouvoir, que tu fasses ce que tu veux, que tu modifies la constitution, que tu fasses les choses et qu'on te laisse en paix. Les coopér la coopération doit servir les Sénégalais. La coopération doit être un outil de développement, mais pas seulement un outil d'appauvrissement. Ce qui est le cas depuis que je coopération, outil d'appauvrissement population sénégalaise. ONG yi fi nekk di enrichir ou di am des salaires mirobolants ça ne sert que leur leur leadership qui est en général occidental ONG yi fi nekk di def semblant ne dañuy jàppale Afrique depuis bañ fi nekkee depuis des des vingtaine d' années des des cinq euh, ñaata at lañu fi def lan la ñu développé ci domaine yu nekk à part ñoom seen bopp ñu am ay salaire ah am ay salaire de rêve que ces ONG que ces ceux qui prétendent sauver l'Afrique ceux qui prétendent venir pour nous aider que nañu nañ ñu amal njëriñ nañu amal njëriñ mais ce que vous avez dit aujourd'hui ce n'est pas acceptable Monsieur le Président, ce que vous avez, votre déclaration est irresponsable et inacceptable. Parce que vous avez le devoir de protéger les Sénégalais. mais am na nekk ci bi certainement, te du neex seen xol président de la république te xam naa ñu ci bëri yow la ñu votel ñu ci bëri xam naa ni dañ la votel ñu toog dégg la nga naan leen mënuma aar seeni doom mënuma aar seeni njaboot parce que amuma moyen dispositif amuma hôpital mais lan moo war a tax nga bañ a am hôpital te nga am tey alal nga am alal sa réew am alal boo mën a defee lu la neex mën a defee lu la neex ci àddina bi mën a laajte lu la neex te dañ la koy jox am sorry <laughs> mën a laajte lu la neex te danga koy jox donc foofu rek laa bëggoon waxee Macky Sall réajuste le réajuste le tir pendant qu'il est temps. OK Bonne journée à tous. God bless you. J'espère que le message va passer. Partagez la vidéo. Merci.